Ali Mohamed Sega Camara ñu ngi lay nuyu. am na ñu fay euh, soxna Fatou. am nañu mbégte dalal la ci suñu matinalu tey fàttali ni yow yaay njiital mouvement pour euh, le parti de la construction consultant nga tamit euh, ci wàllu sécurité alimentaire planification stratégique analyse géopolitique stratégique également ya jiite woon secrétariat exécutif conseil national à la sécurité alimentaire bu Sénégal. alors nguru Sénégal dafa décider jël ay denrées alimentaire di ay ceeb a ki nu yittewoo jébbal ko ay njaboot. woot yoo xam ne dañoo néew doole ngir dimbale leen ci jamonoy coronavirus bi ñu nekk waaye yow ni nu koy defee dafa mel ni am na loo ci gis luy ñuul ci soow mi ndax mën nga ñëw expliquer un peu euh, lii la jaaxal ci mbir mi. waaw euh, Fatou maa ngi leen di gërëm euh, te di gërëm waa réew mi FM ak seen auditeurs yëpp di wax ni maa ngi rafetlu njiital réew mi jël décision jàppale askanu Sénégal ci wàllum dund gi ci waxtu ji nga xamante ni dañu waxoon nit ñi nañu toog ñu bañ a nekk ci yenn far mu daje. donc euh, ñi nga xamante ni seen dem ak dikk bi pour liggéey bi na sax na ci ñooñu jàppale leen ci wàllum dund ra dama ngi koy rafetlu bu baax wala xam nga bu njiital réew mi jëlee ndogal mu ne nit ñi bu ñu jegeyantoo bu ñu def ay euh, li ni euh, rassemblement ba tax na ni njiitalu diine yi ak yeneen façon kuréel ñoom yëpp dàkk nañu dajale nit ñi ci ay jàkk ci ay juma ci ay bërëb liggéeyukaay même ay réunion kenn doo kenn dootu ko defati mm-hmm. ma yaakaar ni ñi nga xamante ni ñoo jege njiitilu réew mi dañ ko waroon a xelal ni bu nu jëndee ceeb di ko bu jëndee dund di ko yóbbu di ko bëgg a daa ñu dajale nit ñi te loolu la ñu gën a bañ ci waxtu bi nga xamante ni coronavirus dafa am bu fekkente ne defuñu loolu dafa mel ni décret bu président de la république signé gouvernement bi moo ci njëkk soobu di di ko violé loolu nag nga xam ne vraiment dafa rafetul président de la république kenn du ko jumloo boo nekkee ci wetam da nga war a xarañ nga xalaat bu baax ci li ngay def lan mooy engagement bu dem lan mooy engagement wu tey ak lan nga la yaakaar ni vraiment dina ko jël ci engagement loolu ngay njëkk a xool mm. balaa nga koy xelal ci lenn boo xoolule loolu nga xool ni que yow man sama intérêt bi ci lii la nekk parce que ñu bëgg vraiment donc euh, mbir mi siw pour ñu xam ni gouvernement mi ngi jàppale askanam mais gouvernement askan bi daf ko fi teg président askan bi daf ko fi teg pour que mu jàppale ko nu mu ko mënti jàppale fànn bu mu ko mën mënti jàppale ak nu ban façon lay jaare ñu xam ni vraiment moom def na wareefam jarul sax vraiment pour que ci loolu jarul wone mais yaakaar ni loolu yëpp waroon nañ ko ma sax mën a def ci sutura surtout que bi nga xamante ne ñu ngi ci situation pandémie maanaam feebar bi nga xamante ne dafa gaaw a wàlle bu fekkente ne loolu am na boo wootee nit ñi nga ne la ñëw leen jël ci seen i ceeb mais faaw ñu dajale bu ñu dajalewulee ci biir fi nga xamante ne foofu lañu koy séddale mais ci biti dinañ dajale loolu ala kulli ali dina am te loolu bu amee nag kenn xamul kan moo am feebar feebar bi donc wàllaate bi ci u plan communautaire dafay gën a law dafay gën a yaatu mais yaakaar na loolu waroon nañ ko mën a mën waroon nañ ko mën a. Euh, euh, euh, bañ bañ a def. d'accord kon lan la ñu waroon a def. ci li ñu waroon a mën a def mooy que am na ay pexe yu bari pexe yi mën nañu def li nga xamante ni yón yónnee xaalis nit ñi tàmm nañu recevoir xaalis ci seen ci seen téléphone léegi. pour loolu amee buñ ko defoon noonu xaalis ci boppam sax dara du ci yàqu. da ngay def ci ay transport li ngay def ci leneen. loolu yëpp dara du ci yàqu waaye nag li ci gën a neex mooy que boo defoon transfert monétaire bi maanaam xaalis bi yónnee ko ñi nga xamante ni ñoo ko yelloo te xam naa ni bon pour nga xam ñi nga xamante ni ñoo ko yelloo ci un million loolu d'abord jafe-jafe la ñëwuma ci loolu mais boo ko yónnee nit ñi daanu dem ci boutique ya commerce bi dina dox euh, donc koom bi dina dox waxtu bi nga xamante ne ñëpp yaakaar na ni affaire bi taxaw na donc commerce bi dina dox te ñi nga xamante ni ñooy service yooyu di ci war yi ak di Orange Money ñooñu tamit dinañ liggéey et aajowul nga jege sa sa moroom donc yow boo jëlee sa xaalis bi mën ngaa dem dund dund bi bi nga xamante ni euh, ni nga ko soxlaa boo soxlaawulee macaroni pat donc doo ko jënd dangay eh, dem jëndi leneen boo soxlawuloo suukar di nga dem jënd leneen boo soxlawuloo ceeb di nga mën a jënd dugub et loolu yaakaar naa ni mënoon nañ koo def noonu buñ ko defee ñëpp gis ci seen bopp pom bi dina dox ba pare rax ci dolli euh, nit ki dina am li nga xamante ni dina am. Euh, choix boppam. Mhm. Euh, li mu soxla. loolu di benn. Mhm. ñaareel bi mooy que bu fekk comme def nañu ba def jënd nañ ceeb bi yooyu ak ak diw bi ak suukar feet yooyu. di ko yóbbu fu ñu ko yóbboo dem teg ko foofu. dama leen di ñaan ñoom tey jii nañu def ay coupon alimentaire. bu dee gouverneurs yi ñoo nekk ci boppu commission des régionales yi préfet yi ñoo nekk ci commission départementale yi sous préfet yi ci commission arrondissementale yi mais nañu def ay coupon alimentaire euh, militaires yi ràññee wala yi wala policiers yi xaw ma ñan ñooy war a dem ci ñu ràññee ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, ñi koy ñi ko yelloo bu fekkente ne am na six cent ménages ci benn commune six cent ménages soixante Euh, soixante kii la soixante euh, euh, responsable famille la juróom-benn fukk responsable famille la donc nañ leen ràñ ràññee ñu jox leen seeni i coupon alimentaire ne leen bés sangam da ngay bés sangam ngay ñëw pour jël si sa ceeb sa sa dund bi li nga xamante ne moom la moom la la nguur gi jagleel. bu ñu defee noonu yaakaar naa ni rassemblement bi mën nañ ko bañ a bañ a bañ a bañ a am donc dana néew. Mhm. waaye bu ñu defulee noonu. la ma yaakaar ne mooy que boole mu wootee rek quoi donc euh, rapidement nit ñi dinañ ci regroupé d'accord même ñu ci amul soxla sax dinañ fa ñëw mhm. alors balaa euh, pandémie coronavirus bi di ñëw am na yenn gox ci Sénégal dañoo amoon jafe-jafe euh, ci wàllu sécurité alimentaire tey ak situation bi lan la ñu mun a xaar si gox yooyu. waaw xam nga ak situation bi c'est dafay gën a metti xam nga li njiital réew mi joxe benn yoon lañ ko joxe du ñaari yoon lañ koy joxe wala ñetti yoon lañ koy joxe benn yoon lañ koy joxe. ña nga xamante ne dañoo jànkonteel ak ay jafe-jafe dund ñu li ñuy tudd ci nasaraan insécurité alimentaire yaakaar naa ni ñooñu jàppale diñ leen war a jàppale mooy ñetti weer ci gën a néew jamono ji ma fa nekkoon doon nañ jàppale ba ñeenti weer lu gën a néew mooy ñetti weer donc ñetti weer mooy li nga xamante ni ñooñu mën nañoo donc boo leen jàppale ci loolu Euh, man nañ ci mën nañ ci génn donc sans ñu am ci problème yu yu yu gën a taar mais jamono ji nga xamante ni bu fekkente ni aide alimentaire di dem nii ci ñooñu lañ leen dugal benn boobu rek lay nekk mbir mi dina gën a dina gën a dina gën a metti te bu gënee metti ñii nga Sénégal xam nga fa toll na ci phase am na junni ak ak li ci topp ci ay njaboot yi nga xamante ni dugg nañu ci phase quatre muy phase urgence ci analyse cadre harmonisée bi ma gis donc ñooñu buñ leen jàppale wala dinañ basculer ci xiif loolu benn la ñaareel bi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci phase trois bi maanaam ci jàpp jafe-jafe jànkonteel jafe-jafe dund dinañu basculer ci phase quatre ñoom dinañ dugg ci urgence ñooñu tamit euh, ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci phase deux bi dinañ basculer ci phase trois bi te ñi nga xamante ni ñu ngi ci phase numéro un boo otulee am na ñi nga xamante ne dinañ basculer ci situation bi nga xamante ni euh, mooy phase yaakaar naa ni Euh, war nañu xalaataat parce que déjà arc mi nga xamante ne mi mooy mutuelle panafricaine buy assister réew yi bu ñu amee ay jafe-jafe dund. Euh, ci li ma dégg yónnee na déjà cinq milliards en tout cas jël na décision jox Sénégal cinq milliards xaw ma ndax cinq milliards yi agsi na wala agsiwul mas naa cee liggéey donc bu fekkente ne agsi na war nañu ci lu ci gën a gaaw ñu xool secrétariat sécurité alimentaire jox leen li nga xamante ni mooy seen i seen i gëdd. pour que ñu mën a def seen liggéey ñu mën a ràññee ñooñu ci biir Sénégal bu fekkente ne ràññeewuñu leen euh, bu fekkente ne ràññee nañ leen ba pare lu ñu mën a def mooy ñu jublu ci jàppale leen ci ñetti weer ci wàllum dund mhm. te loolu ah, tamit mhm. ci wàllum pandémie bi nañ ko def ci ay mon ay transfert monétaire ndax xaalis bañ a yàqu wala ñu def ko ay coupon alimentaire d'accord alors euh, Sénégal euh, président de la République keroog bi muy wax ak askan wi junj na wàllum sécurité alimentaire euh, waxaale itam autosuffisance euh, ci wàllu ceeb yi maanaam moom ci suñu bopp euh, ba lu ñu soxla ngir dund ñu mën koo bay fii loolu Sénégal naka la war a def ba yegg ci mën a assurer boppam li muy dundee. waaw xam nga Fatou. ba léegi dama koy ñaawlu. depuis Senghor 1960. ba deux mille vingt bi. président bu fi jaar dana wax sécurité autosuffisance alimentaire wala souveraineté alimentaire. wala sécurité alimentaire. dañ koy wax duñ ko jëfee. yaakaar naa ni nguuru Macky Sall war naa mën a dagg bu dàgg buum boobu. buum ñàkk agir. parce maa ngi fàttaliku. ci deux mille dix. dama defar benn document bi nga xamante ni. dama wone ni nan la ñu mënee def. ba euh, mën a maîtriser ndox. maanaam ni ñu waree jëfee ndox ci biir Sénégal. ndox bañ a manqué. ñu war a béy. ndox bañ a manqué ñi nga xamante ne ñooy sàmmkat yi ñu bañ a màngaan ndox bañ a manqué pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci industrie yi te képp ki nga xamante ne da ngay def production alimentaire ndox mën nga koo fekk donc ndox mi moom la ñu war a maîtriser document boobu moom laa defar jox ko président Abdoulaye Wade en deux mille dix novembre douze novembre deux mille dix maa ngi fàttaliku mm-hmm. jox naa ko ko waaye amuloon jot pour def ko parce que après dafa daanu ci élection président Macky Sall euh, octobre septembre octobre deux mille onze bi mu nekkee sunu candidat dama ko jox document boobu woon ko ni nan la ñu mënee def ba maîtriser ndox mi te mën a def production mu daal di ko dugal ci yoonu yokkute bi te bi mu toogee ak léegi ministre yi nga xamante ni ñoom ñoo yore ñoo ŋànk loolu pour man koo def ba léegi defuñu ko te ñun man mii lay mii wax ak yow bi may bi ma nekkee njiitalu ONG panafricaine def nañ ko ci biir Sénégal fii am na ay gox yi nga xamante ni dafa am ay euh, bas-fonds wala ak ay vallées yi nga xamante ni jot nañ ci def ay ouvrage yi nga xamante ne euh, génne na euh, xorom si ci suuf si ak ndox mi benn côté beneen côté bi mu am ndox ndox mu lewet te ñu def ci waa def ci wàlle ay pont yi nga xamante ne nit ñi dinañ ci jàll te pont boobu nag mooy tax mooy mooy arrêté xorom si bañ a dugg ci vallée yi hmm. loolu biñ ko defee nit ñi béy nañu ceeb ba ay juróomi benn weer wàllu ëpp loolu ceeb day dem ba nga xamante ni mu buñ ko góobee ba pare quoi dafay gën dafay dafa dafay focciwaat à partir de ce moment encore ñu bàyyi ko moo def maturation maturation ñu da ñu daal di ko góobaat donc def nañ ci ay trois ay trois récoltes xam nga loolu mooy vraiment véritable politique de maîtrise de l'eau loolu bu fekkente ne am na pour nga xamante ni jox na la ko ci xol bu sedd guy pour que Sénégal gii man cee génn yaakaar naa ni war ngeen ci mën a góorgóorlu pour vraiment politique de maîtrise de boobu mën a nekk. mais mbéyu réew mi nga xamante ni ci ñetti weer rek lay lay lay lay lay nekk mais ñetti weer la mën a dundal nit ki ci fukki fukk ak ñaari weer mm-hmm. loolu problème la te sécurité alimentaire autosuffisance alimentaire warul nekk ci ceeb rek président de la république da wax na ni vraiment dina dina teg corridor corridor corridor euh, céréalier ci Sénégal mi ngi ci biir euh, plan Sénégal émergent mm-hmm. mais ana corridor Sénégal céréalier boobu ba léegi ministre yi nga xamante ne moom la ci teg ci agriculture wa ci wàllum ndox ak yooyu ba léegi est-ce def nañ ko kenn tegu ci bët statistiques yi nga xamante ni yooyu la ñuy génne mais xam nga ni Sénégal gi même ci àdduna bi statistique ak mbirum mbirum waañ la rek da ngay dugg nga togg ko nga génne ko boo ko yekkal bu fekkente ne d'accord na ci mais mën na ko lekk mbir mi noonu la ci d'accord la mën na ci xëpp suuf donc na nga yaakaar naa ni tey jii dañu war a njëkk a maîtriser ndox Sénégal bi nga xamante ne mooy fleuve Sénégal bii bi jógee depuis euh, ay Bakel Falémé ñëw ba Saint ba Ndar jaare ko ay Matam ay Podor ak yooyu ñëw ba Ndar dex boobu li muy sand ci ndox mu lewet ci biir euh, géej bi at bu nekk mooy trente neuf milliards de mètres cubes mètres cubes nag xam nga ni mil mille mille mille litres la maanaam junni litres mooy mètre cube trente neuf milliards ci junni yoon moom la ñuy sànni ci ndox mu lewet ci ci ci géej bi donc xam nga loolu versement la. Hmm. kenn du ko jëfande donc li ma yaakaar ni loolu mën nañu jël ci juróom-ñaari milliards ci mètre cube ndox moomu le dugal ko ci sunu biir réew buñ ko dugalee fii nga xamante ne ay ndex yi dex yi wowoon la mënoon leen mën na leen ci dugal vraiment ndox yooyu dekkaliwaat dex boobu bu dex yooyu bu ñu dekkaliwaatee naturellement dafay may Sénégal mu am ndox. am na yenn façon tàngoor sax bi nga xamante ni ñu ngi koy dund te dootuñ ko dund. donc nit ñi mën nañoo béy. Mm-hmm. Euh, noor ak nawet. soo jëlee tamit euh, géej bi nga xamante ni sept cent kilomètres la ñu am ci ci ci ci tefes. Mm-hmm. sept cent kilomètres yooyu. man yaakaar naa ni Lompoul mën nañu taxawal benn station bi nga xamante ni dafay euh, dafay dafay xëcc ndox mi ci ci ci géej bi ñu génnee ci xorom si mën nañ ci def cent vingt mille mètres cubes par jour. Lompoul mën nañ ko ci def Foundiougne mën nañ ko ci def ka Kabrousse mën nañ ko ci def Lompoul mën nañu bu ñu defaree tuyaux yi mën nañu yóbbu ndox mi ba maatam gox yi nga xamante ni yëpp dina ko traversé ñooñu yëpp mën nañ am ndox di béy noor ak nawet di ci di ci naan di ci jox seen jur. boo jëlee Foundiougne Foundiougne mën nañ mën nañ ko yóbbu ba ba Bakel boo jëlee Kabrousse mën nañ ko yóbbu ba Kédougou faiblesse bi nga xamante ni jafe-jafe bi nga xamante ni moo ci nekk mooy que Euh, Sénégal dafa pant si boo jëlee téeméer dafay mel ni soixante centimètres moom la pantee jógee pénku dem so te loolu yaakaar naa ni mën nañ ko redresser ci soixante centimètres mm-hmm. dafa am ni ñu koy defee pour que tuyaux yi mën a jógaat tuuti mu mu mu mu mat soixante centimètres yooyu pour que mu mën a mu mu mën a yóbbu ndox mi parce que ndox mi du du du yéeg dafay wàcc. d'accord tant que defaruloo ko pression. Mm-hmm. dafay wàcc pression yooyu. moom lañ leen di mën a defaral. Mhm. pour que ndox mi mën a vraiment donc yéeg rapidement. Mhm. muy walangaan di mën a dem euh, ci gox yi nit ñi di ko utiliser pour euh, seen i seen i mbay mi euh, mbay mi mën na nekk donc noor ak nawet. Mhm. mën nañ ko utiliser pour sàmm gi mën nañ ko utiliser pour usines yi ci boppam mën nañ ko utiliser pour defar ay glace parce que ay usine glace mën na ci taxaw mën nañ ko mën nañ ko jëfandikoo pour pour naan ak sangu Euh, ci euh, ci ci gox yi nga xamante ne am nañu jafe-jafe euh, ndox parce que xorom saa ngi law ci biir Sénégal. Mhm. jërëjëf Ali Mohamed Sega Camara ñu fàttali ni yow yaay njiital mouvement pour le parti de la construction consultant indépendant nga itam ci wàllu sécurité alimentaire planification stratégique analyse géopolitique et stratégique jiite woon nga itam secrétariat exécutif bu conseil national à la sécurité alimentaire bu Sénégal amoon nañu mbégte mu rëy dalal ci matinalu réew mi ñu ngi lay gërëm. sant di leen gërëm bu baax a baax a baax maa ngi sant tamit euh, njiital euh, réew mi FM nga jottali ko samay nuyoo. incha allah dina ko dégg.